ci dialogue bi yow ak Macky Sall ngay reetaan euh, Macky Sall euh, c'est sous son magistère lañ la déchoir de ton poste de maire de Dakar nga nekk député ñu lever sa immunité parlementaire nga bëgg a nekk candidat mënoo nekk candidat à l'élection présidentielle euh, est-ce que li ma gis noonu kii la vous êtes un républicain ah. nga def ne ngistal la. waxuma ngistal ma ne vous êtes un républicain da ngay respecter les formes républicaines mais est-ce que ci sa biir xol. les rancœurs sont sont sont sont ci sa biir xol est-ce que am na loo jàppal Macky Sall wala jàppalatoo ko dara pour yow la page est tournée. je vais te je vais li ma gëm man. mooy rancœur et rancune c'est la faiblesse. amoo rancœur amoo jamais xaw ma sax loolu. moi j'ai les mêmes amis. merewoo ko ci dara pourquoi. amoo regret. pourquoi mu jëriñ ma laan dis-moi mu jëriñ ma laan non am na. dund naa sama kaso tëdd naa sama kaso comme on dit jeex na fàtte naa ko il était dit dans ma vie dans ma carrière lii danaa am biir ndog-ndog xam nga yaa fàtte sànq fi ma aw j'ai été le plus jeune partout député ministre j'ai tout été dans ce pays gën ci tuuti samay kilifa wóolu li ma géré ci xaalis li ma laal ci doomu xaalis et c'est pas la première fois que je reçois une inspection hein. en bi ma génnee commerce c'est sàmba Diallo qui a inspecté mon ministère. à la faveur oui kenn musuma topp dërëm. biir dama ni leen su fekkoon dañ ni ma da nga sàcc da nga détourné da nga jaay marché su yooyu yëpp amoon ci rapport bi barke Stade Faté may démissionné si si j'avais commis de si j'avais commis des fautes de gestion. kenn du ma yóbbu kaso may bàyyi fiñ ko awale moo ma neexul parce que fonds politique ñoom ñëpp xam nañ ko ñoom ñëpp xam nañ li muy jëriñ beaucoup en ont bénéficié ñu xëy ni ma du da nga laal xaalisu jàmbur surtout yow jaay doole boobu laa nanguwul mais pour man c' de l'histoire ancienne et comme ni ma la wax rancœur ak rancune du yu jullit du yu gor te nangu naa nattu te incapable de l'avoir